ministre de la femme taxawaay bi mu waroon am si ndaw yi si département bi dafa des ñi ko wax mooy ndaw yu bokk si opposition bi ak parti au pouvoir doon amal nag ñaxtu. ñun ministre de la jeunesse mooy suñu ministre tutelle gis nañ ne ci comme comme contexte Covid bi ñu nekk ministre de la jeunesse moo waroon a occuper les premiers rôles taxaw ànd kook ministre de la santé. génnee jeunesse bi yëpp mais ma bi mu ñëwee ci département bi lu mu fi joxe mooy mille francs la fi joxe mille francs la joxe ci département bi 5 gel hydroalcoolique cinq nu ngi koy détergent ak cinq 5 5 bouteilles eau de javel pour tout un département qui polarise 16 communes léegi loolu ngeen yaakaar ne ñaar fukki junni sama quartier sa ñaar fukki junni mënu faa xeex coronavirus sama quartier ñaar fukki junni nu ñu koy 5 bouteilles détergent mënu fa dara. loolu nag bu ñu ko waxee ñu ne ministre bi am ca lañ xamee sax ñun jeunesse su département de Mbacké ca la ñu xamee ne ministre bi am na benn enveloppe boo xam ne président da ko ko jox à hauteur de 500 milliards pour programme 500 millions pour programme de euh, résilience économique mu war koo jàppale des jeunes porteurs de projet ou des jeunes détenteurs euh, d'une petite et moyenne entreprise te loolu ñun jeunesse su département de Mbacké képp ku xam fu ministre bi lancé canevas boobu pour ñun ñu ñëw bokk ci loolu nañu ko wax est-ce que ñun amul fi du ñu wax ne département de Mbacké ni mu toll yëpp amul benn jeune porteur de projet du ñu wax ne amul benn jeune boo xam ne am na benn euh, micro entreprise kon loolu ñuy lancé waale appel ministre bi ci enveloppe boobu président jox ko pour mu jàppale jeunesse bi ci maanaam ci programme résilience économique na ci bàyyi xel commune Touba département de Mbacké rawatina commune Touba ndax c'est le secteur commune boo xam ne maanaam yow yaa nekk deuxième ville du Sénégal du point de vue économique et du point de vue démographique ba pare nga walbatiku tey amul lenn loo xam ne tey comme ni ma ko waxee sànq ci dans mes propos état moo ko fi jëmmal loo xam ne ñun dañ ciy war a gis suñu bopp. ñoom nag jàpp nañu ni Néné Fatoumata Tall Mbaye wute nag ñi jiitu woon bokk na ci li koy jiiñ lu mu leen digoon doon ay projet ngir ñongali nekk ndaw yi te nag ba léegi France daal di moom Mame Mbaye Mame Mbaye Niang kooku il a mais bi loolu jeexee euh, ñaar ñi remplacer Mame Mbaye Niang defuñu fi dara muy ku ci mel ni Pape Gorgui Ndong euh, nen na Fatoumata Tall mi nga xam ne tey mooy l'actuel ministre de la jeunesse ñu xool ne am na li ñuy wax dans ministère des domaines agricole communautaire bien vrai que gis nañu ministère am maanaam pouvoir yi mu amoon yëpp amatu ko ndax am emploi yooyu yëpp génne nañ ko ci ministère am mais gis nañu am na loo xam ne war na ko mën a servir département de Mbacké rawatina commune Touba muy domaine agricole communautaire ndax tey Touba nekk na commune boo xam ne tey ñu wax ni mooy la deuxième ville du Sénégal doo fi gis benn usine boo xam ne ñu ne état du Sénégal moo ko fi érigé pour ay ay jeunes di fi xëy amuñu école amuñu dara li ñu am mooy euh, gone yi dañuy jàngi alxuraan suñu paree ñuy dem jàngi métier yenn yi nga ñëw sax da ngay fekk sa njàngum métier weesu na léegi da ngay dugg ci dawali saret wala jéem a defi commerce wala nangam loolu nag moo tax tey ñu taxaw ni ministre de la jeunesse laajuñu ko xaalis laajuñu ko emploi laajuñu ko lenn lu ñu koy laaj mooy nañu jàppale ériger dans le département de Mbacké rawatina la commune de Touba un domaine agricole communautaire ñu koy wax ne nag na moytu ñu koy wax ne fii ci département de Mbacké wala commune de Touba tout est blanc comme neige parce que ñu koy wax ne ay gone yi koy wax nii ñoom contrôlé nañ leen mu leen di jox ay 100000 ay 50000 ñun nekkuñu ci loolu ñu nag moom ñu ci ëpp ñoo bokk parti ñeneen ñoo ngi ci opposition bi waaye problème bi mooy il est temps nag ñu taxaw jàkkaarloog askan wi xamal leen ne Touba fës Touba fës parce que tamit tey Macky Sall mun nañ dem ba bàyyi Macky Sall mun nañ dem ba bàyyi Idriss Seck mun nañ dem ba bàyyi Sonko waaye dara àdduna jaralu ñu bàyyi Touba. ñoom nag jàpp nañu ni contexte bi moo ko waral waaye nag bu fekkoonte ni sax nag du Covid 19 bi dina leen gën a dégg doon ay ndaw yu citoyen moo waral ñu dawal la pédale douce ndaw yi am lu leen metti nag dàqu ngir toog waxtaan. waaye li ñu bëgg daal mooy seen ëllëg mu taxaw si ndax nag danoo am boobee mérite comme yeneen ndaw yi nekk si biir réew mi